parce que président Sénégal jiw la lii suñu mbokk nga suñu président nga loolu la dogal loo ñuy ko président du Sénégal C'est à tel président wax président. la ko ba ñu yàlla may ñu toog degna fi ci dialogue bi bu ngay ubbi dialogue bi am na sax ay sénégalais yu xaw ñaawlu peut-être le ton wala le mots utilisés président man pour que Sénégal am jàmm man nangu naa raam ñaan la yow parce que jàmm bi ngi sa loxo parce que lu fi yee tey na Sénégal xam nga ñun xam nañ te yàlla mën na seede président ne waxu troisième mandat nañ la ko ñaan ci que dama ne su nekkee def pour que Sénégal am diamant. man Barthélémy Diaz en tant que maire de Dakar mang ngi leen ñaan ci troisième mandat bi président nga Koutisouf. en tant que acteur politique président mang ngi ñaan ci troisième mandat bi nga Koutisouf. président de la République en tant que rakk ci yow maa ngi lay ñaan ci njekk waxu troisième mandat ñu teg ko ci suuf ma yokk ci tamit ma ñaan la ko ci njëkk ak ci yarak teggin parce que lu ñuy dund tey nii jaru ko te lii yépp lu ko waral mën nañ juum wante lu ko ragal euh, lu ko waral mooy lu ñu xalaat ci waxu troisième mandat te tey mu am ci askan bi ñu ci bëri ñu jàpp ni que yow da ngaa bëgg a éliminer ñëpp pour mën a toggaat fii te président yow xam nga ñun xam nañ te yàlla mën na seede wax nga sa gémmiñ suñu nopp ba ngay def référendum te xam nga lu constitution wax te président violence bu ñu gis tey yépp lenn rek ko waral te mën naa jum et je pense que waxu troisième mandat bi soo ci nangoon yàbbi ci daanaka xol yi mën nañ feexaat moo tax président may sàkku ci yow nga génn wax ak sa askan wax leen lu ñu mën a dégg parce que président nooteel bu ñuy wootee Sénégal jaay doole bu ñuy wootee Sénégal mënatul continuer kon nag président xoolaatal sa taxawaay parce que ñu nekk ci mbedd yi mu neex la mu naqari la yaay seen président te bañ lay fal dañ la faloon ngir yaakaar musuñu la fal ndax lu ñuy gis tey nii di ko dund tey nii loolu xel musu ko xalaat te loolu dara jaru ko ci àdduna fii yàlla rekk fi nekk keneen nekku fi am yàlla mooy buur ñàkk yàlla mooy buur amoo fi noon wax naa la ko di bérilaat wax ci président dañ la bëgg dimbali ndax yow nga mën a dimbali Sénégal ci ban anam dimbali la pour xool naka lañ lay wutal yoon nga génn fii par la grande porte parce que mooy sa cër président